وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه ذوي المكارم بسم الله الرحمن الرحيم waxoon nañ leen ne wirdi yi nga xam ne wala boog azkaar yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na ko sidina cheikh ñaari xeeti wirdi la am na ci azkaar yoo xam ne sidina cheikh moo ko jagoo ñun suñu yoon nekku ci am na ci azkaar yoo xam ne daf ko ko jox ne ko képp ku ñëw ci yow sàkku ko ci yow am nga ndigal ci jox ko ko yooyu azkaar moo ñu itteel xeeti zikar yooyu ci biiram itam dafa am ñaari xeet daf ci am azkaar yoo xam ne laazima la dafa war taalube bi su xasee ba jël ba su ko sàgganee wala boog jooxewu ko ci waxtoom daf ko war a fay am ci azkaar yoo xam ne azkaar ixtiyaariya la warul taalube bi dañ ko tànn rek su ko neexee def su ko neexee bañ a def waaye itam bu demee ñaan ci ndigal ba ñu may ko ci ndigal dafay daal di nekk loo xam ne nag moo ko waral ci kawam nañ ko ko sant daf koo war a defe azkar lazima yi nga xam ne dafa war nag ci taalube bi mu war di ko def suba ak ngoon wala boog mu koy def ngoon wala mu koy def suba wala mu koy def ginnaaw tàkkusaani aljuma yooyu lañu fas yéenee leeral ñaata la ñett la kon boog jàppal ci sa loxo jàppal ci sa xel wàññi ci say baaraam ne xeetu zikri yi nga xam ne dafa war ci taalube tijaan bi ñett la ban ak ban al wird ak ban al wadifatu ak ban al haylalatu baada asril jumaa ñett a ngi noonu ñett yooyu yépp danañ ko leeral benn par benn ñi ngi njëkkee ci al wird al wird waxoon nañ leen ko ci ginnaaw ne mooy li njëkk a wàcc moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jox sidina cheikh radiallahu anhu mu lambe woon istigfaar ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ginnaaw bi mu mottalil ko boole ci baatu laa ilaha illa allah téeméer yoon alwird nag soo ko bëggee def ginnaaw bi nga matalee charte yooyu nga xam ne waxoon nañ ko ci képp ku bëgg a jàng wirdam ca la ca war ca laabak moo xam ci xabas la moo xam ci xadas la ak jublu penku ak toog toogin wu yaru ak teewlu maanaa baat ya ngay jàng da ngay tàmbulee lii allahumma inni nawaytu bi tilaawati hada alwird alsabaxi aw almasaa'i taadiman wa ijlaalan laka وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم مخلصا لك من اجلك واقول بامدادك وعونك وحولك وقوتك وبما وهبتني من نعمك وتوفيقك مستعينا بك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين loolu mooy maqsad bi nga xam ne moom ngay tàmbulee sa wird soo ko defee ba noppi nga teg ca astaghfirullaha téeméeri yoon teg ca assalaatu ala nabi ci siira boo ko mënee waaye nag li ñu gënal moo di siiratu salaatil fatixi nga jël salaatul fatixi nga jàng ko moo ñu gënal ndax salaatul fatixi li mu làmboo ci yool fa tabaarakallahu dafa rëy moo tax ba maam Cheikh Alxaaji Malik wax ne ألفاظه استغفار والتهليل ثم الصلاة مئة خليل بأي صيغة وأما الأفضل فقل صلاة فاتح قد فضلوا هذا الذي رتبها الرسول صلى عليه ربنا الجليل وكان آمرا بها تلقينا لكل مسلم أتى يقينا من بعد عرضه شروطنا التي في كتب المذهب قد تجلت ginnaaw boo defee istigfaar téeméeri yoon nga teg ci salaatu ala nabi téeméeri yoon waaye salaatul fatixi moo ñu gënal wa amma al afdalu ba ca gën moo di salaatul fatixi fa qul salaata fatixin qad faddalu ay qad faddalu salaata fatixin soo jàngee salaatul fatixi ba noppi te moo di allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تيميريون نتكي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سوچا نوبي nga tek ci batu al haylala te modi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah nga jang ko temer yon sooca noppee nga wax sayyiduna muhammadun rasulullah alayhi salaamullah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين soo jàngee loolu ba noppi nga daal di ñaan ñaan gi nag maam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu indi na ci ay ñaan yu bari ci ñaanu wazifa ak ñaan gi ngay jàng ginnaaw boo wirdee ba noppi haadi hadiyatun bi fadlillahi منا إليك يا رسول الله جزى الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومولانا أبا العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه ما هو أهله جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومولانا الشيخ الحاج مالكا رضي الله عنه وارضاه وعنا به امين ما هو اهله جزى الله عنا الاشياخ والخلفاء والمقدمين رضوان الله عليهم اجمعين ورضي الله عن شيخ التجان ومن لنا اليه وسيل كاشف الغمم ومن تعلق بالاذيال قاطبه صب علينا الهي ابحر العصم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الايمان كلهم فاقبل الهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا اصولي واحبابي اصولهم وعممهم رب تعميما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحمي إلهي فاجعل إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإيصاء ندرة هاشم نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي حقد فمن وعين وعين والشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي yaa jaacil alxaali bayn alkaafi wan nuuni loolu mooy ñaanu wasifa ak bépp ñaan boo ci mën a teg mooy ñaanu wird itam soo ko jàngee ba noppi ak bépp ñaan boo ci mën a teg defe naa kon léegi nit ki xam na naka lay wirde lan la war a jàng boo jàngee ñaan googu ba noppi def astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha téeméeri yoon jàng salaatul faatixi téeméeri yoon ci anam boobu ñu ko jànge baatu laa ilaha illa allah téeméeri yoon nga tëje ko ñaan googu ñu ko jànge sa wird mat na léegi kay li ñuy laaj moo di yan jamono nga war a wird wird yan waxtu lañ ko war a def ñu ne wird war nañoo wird ci suba war nañoo wird ci ngoon waaye nag ban jamono lay tàmbuli ak ban jamono lay yem ñu ne kat boo delloo ci téere fiq yi waxtuy julli ni mu amee muxtaar amee ko daruri wird wi itam noonu la ko amee moo xam wirdu suba la moo xam wirdu ngoon la wirdu suba waxtoom mi ngi tàmbulee waxtu muxtaaram wi nga xam ne moom la ñu tànn pour ñu jooxe ko ci mi ngi tàmbulee ci ginnaaw julli suba ila duxal aala ab duxal aala nag am na ñu ne mooy zawal diggante boobu man nga fee jooxe sa wird ndem amuloo benn ngant kooku ko amul ngant lañ ko tëralal mooy waxtu wi ñu taamu ngir nga joxe ci sa wird waxtu wi nga xam ne nag moo di waxtuhu ak daruri nga xam ne ngant soo ko amee ci nga koy jooxe mi ngi tàmbulee zawal ba ba jant bi so loolu kon yaatu na diggante bi ngay julli suba ba ba jant bi so mën nga fee def sa wird bu dee diggante bi nga jullee suba ba zawal kooku mooy muxtaar mi nga xam ne ko amul ngant ci nga ko war a joxe ki nga xam ne kii am na ngant nag yokkal nañ ko ci ruxsa min ad-duha al-a'la ila ghurubi shams loolu kon defe naa ne yaatu na diggante boobu su ko fi taalibe bi defee def na ada joxe na ko ci waxtu wi mu ko war a joxe waaye bu timis xasee ba jot nag adaa mënatu la nekk bor la bu nekk ci sa kaw loos xabaa lañ koy tudde da nga ko war a fay loolu mooy waxtu wirdu suba bu dee wirdu ngoon mi ngi tàmbulee ci ginnaaw bi nga jullee tàkkusaan ila salaatil isha ba ba ñuy julli gee kooku mooy muxtaar mi ñu taamu nga joxe ci sa wirdu ngoon sa wirdu ngoon nag am na waxtu boo xam ne daruri la ñeel képp koo xam ne dafa am ngant mi ngi tàmbulee min maghribi shafaq bu demee ba shafaq faddu bi maanaa bu ñu demee ba julligee ila tuluwal fajri dem ba fajar di xar diggante boobu soo ci defee sa wird def nga ada jooxe nga ko ci waxtu wiñ ko tëralal soo ko ci jooxewul nag xadaa lañ koy tuddee bor la bu nekk ci sa kaw loos da nga ko war a fay loolu moo aju ci waxtu yi nga xam ne moom la wird am nee nañ la taalube bi war naa wirdu suba war naa wirdu ngoon wirdu suba am na muxtaar am na daruri muxtaaram mi ngi tàmbulee ci ginnaaw boo jullee suba ba zawal di jot daruri bi mi ngi tàmbulee ci zawal ba ba jant bi so bu dee wirdu ngoon am na muxtaar mi ngi tàmbulee ci ginnaaw jullik takkusaan ila salaatil isha ba ba ñuy julligee soo jullee gee ba ba fajar ji xar loolu mooy darurim wirdu ngoon defe naa ne kon loolu yaatu na ñeel bépp taalibe boo xam ne fas yéene ngaa matal charte yi nga xam ne tariqa bi tëral na ko léegi kay li ci tegu ñu di ko laaj moo di waxtu yooyu ñu ko tëralal ndax taalube bi mën na koo jiital njëkk waxtu yooyu ñu ne waaw balaa ñoo mën a tontu loolu kat il faut ñu leeral ndax wirdu suba la ñu bëgg a jiital wala wirdu ngoon ñu ne su fekkente ne wirdu suba la ñu bëgg a jiital kooku mën naa nekk bi maana maa ngi ci guddig ajjuma bu war a xëy muy guddig samedi wala boog maa ngi ci guddig altine bisu altine ci guddi laa nekk war a xëy muy talaata ci suba sama wirdu talaata woowu ma bëgg ma bëgg a def ci suba ndax mën naa koo def ci guddi gi ma nekkee ci biir bisu altine bi ba ma nekkee ci altine ci minuit wala ci une heure wala ci deux heures wala ci trois heures ndax mën naa cee jàng sama wirdu suba wi ma war a def ci bisu talaata bi ñu ne waaw kooku mën na nekk wirdu sabaaxi yasixu taqdimuhu liman araadahu walaw bilaa udrin laylan donte sax amuloo benn ngant mën nga ko def ci guddi gi ginnaaw buñ jullee gee ba noppi ba nit ki jàng fi ba nit ki mën fee jàng lu toll ci juróomi xisib njàng mu teey bu xasee ba weesu rek sa wirdu suba mën nga koo jiital ba ba fajar di jot wa yastamiru waqtu taqdimi ila alfajr diggante boobu yépp taalibe bi mën na fee jiital wirdam bu ko dee jàng nag yàlla def fajar jot na ko àggale ba noppi su paree daf ko war a baamu moom la ma Maodo di wax naan wa in bada qabla faraagika alfajar fa tammiman wa aidan wala tajur nga dikkaat ci faakihatu tulaab ma Maodo ngi tontu ba tey ne taqdiimu wirdi subxi fi suxuuri kada wadifatun min almaasuuri taqdiimu wirdi subxi jiital sa wirdu suba fi suxuuri li commencé ca guddi ba ba njël di jot ba ba fajar di jot kada nekki noonu itam jiital sa wadifa min al masuur yi bokk na ci li ñu tànn bokk na ci li ñu soloo itam jële ko ci kilifa yu baax yi waaye nag wala tuqaddim saaira al awraadi illa ida dananta udran baadi bul jàpp nag sa wirdi yépp nag jiital ko benn yoon allahumma lu dul nga yaakaar ne su waxtu wa jotee da nga am ngànt in intafa ma dunna fa almahbubu iaadatun kadaara wal adibu loolu la moom Cheikh El Hadj Malick wax kon dañu laajoon ndax wird yi nga xam ne waxoon nañu ay waxtoom seeni waxtu ndax mën nañ koo jiital wala déet ñu ne kat il faut que ñu leeral ko benn par benn bu dee wirdu suba mënees na koo jiital ca guddi ga la commencé ca guddi ga ba ba fajar di xar mënees ne cee jiital wirdu suba donte sax ngànt amul moo xam sa wird la moo xam wasifa la. taqdimu wirdi subxi fi suxuuri kada wadifatun min almasuuri loolu kon leer na li ci tegu moo di wirdu ngoon wi nga ja war a jàng ginnaaw boo jullee tàkkusaan ba noppi ndax mën nga koo jiital moom tam ca guddi ga wala mënul nekk ñu ne aha kay mënees na koo jiital ca guddi ga ñeel koo xam ne kii dafa yaakaar ne su waxtu wa jotee dana am ngànt waaye nag nam koy defee moo di ca biir guddi ga dafay jiital gudd maanaam altine ci guddi ma fas yéene jiit jiital sama wirdu tàkkusaan ca ngoon mën naa ko ci guddi gi waaye ci kaw na fekk mu wóor ma ne damay am ngànt te balaa ma koy def itam damay jiital sama wirdu suba ba noppi door ci teg wirdu ngoon ndax tartib boobu toftale bi dafa war a am ci seen diggante loolu itam mën na nekk kon kay li ci tegu moo di wirdu ngoon woowu ma war a def ndax mën naa koo jiital nag ci bëccëg bi wala déet bi maanaam man xëy naa suba altine ci guddi fanaan naa ak jàmm xëy naa julli suba ak talaata ba noppi def sama wirdu sabaax ba noppi ci talaata ji sama wirdu ngoon wi ma war a def nag ginnaaw tàkkusaan ma fas yéene koo jiital ci bëccëgu talaata ji ndax mën naa nekk wala mënul nekk ñu ne déedéet wirdu ngoon daal mënees na koo jiital ca guddi ga ngir ngànt waaye kenn mënu koo jiital ci bëccëg bi loolu nag moo xam da nga ko bëgg a jiital lu jiitu tàkkusaan di ñëw wala boog nga bëgg koo def ginnaaw bi tàkkusaan duggusee te fekk jullee ko ba jullee goo ko ba noppi loolu moo xam ngànt am na moo xam ngànt amul mënul nekk moo tax borom mu ya wax ne wala tuqaddimanna fi nahaari dal wirda lil udri ala almuxtaari loolu la borom mun ya wax boo dikkee nag ci kitaab bu ñuy wax kitaab boo xam ne maam Cheikh El Hadj Omar radiallahu anhu moo ko taalif muy rimaax moom am na benn masala bu mu indi boo xam ne lennat ci borom xam-xam yi xëy na dëppoowuñ ci ak moom waaye maam Cheikh El Hadj Malick moom fekki na ko radiallahu taala anhu kon ñun ñëpp ñu war koo fekki ndax ci moom la ñu jokk ci moom la ñu aju maam Cheikh El Hadj Omar nee na kuy tukki su fekkente ne bii dafa julli tusbaar ba noppi mu yaakaar ne bu takkusaan jotee dana am benn coono bu koy dab may nañ ko mu jiital wirdu takkusaanam bu jullee tusbaar ba noppi inna almusaafira ida dalla zuhra lahu an yuqaddima wirda almasa aji tukki su fekkente ne bii julli na tisbaar ba noppi may nañ ko mu jiital wirdu ngoon tala julli nga tisbaar ba noppi sa wirdu wi nga waroon def ginnaaw boo jullee tàkkusaan ba noppi ñu ne may nañ la ko nga jiital ko def ko bi nga jullee tisbaar ba noppi ndax coono boo yaakaar ne dana la dab soo ko yeexee def loolu la maam Cheikh Al Hadj Omar wax borom fatxu rabbaani nag moom dëppoowu ci ak moom ba tax mu wax ne ku jàng sa wirdu ngoon ginnaaw bi nga jullee tisbaar ba noppi da nga ko baamu loolu moom moom la borom fatxu rabbaani wax waaye maam Cheikh Al Hadj Omar dëppoowu ci ak moom maam Cheikh Al Hadj Omar maam maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu moom fekki na maam Cheikh Al Hadj Omar ci loolu mu wax ba tax mu ne walil musaafiri bu ayda zuhri taqdimuhu qabla salaati al asri mu ne ñeel na aji tukki taqdimuhu jiital wirdu ngoonam bu ayda bu ayda zuhri ginnaaw jullig tusbaar qabla salaati al asri lu njëkk muy julli jullig takkusaan dal qawlu qad waqaa fi rimaaxi li cheikhina omara di samaahi mu ne wax jooju ñëw na ci téere bu ñuy wax rimaax ñeel maam cheikh al xaaji omar al fuuti radiallahu anhu kay boroomu mbaax mu teg ci nag li nga xam ne moom la boroom ifaada bañ ñàkk cee dëppoog maam cheikh al xaaji omar waaye nag mu ne lakin qawla sayidi cheikh omar tariqana muctabadun muctamadun wa muctabar man daal sun tariqa bii daal lii ci maam Cheikh Al Hadj Omar al Fouti wax na la wóor ne moom laa jàpp ne mën naa nekk te itam ci lay sukkandiku bi maana ki nga xam ne dafa julli tisbaar ba noppi fas yéene tukki may nañ ko ruxsa mu jàng wirdu ngoonam ngir yaakaar ne su ko yeexee coono dana ko dab ba du ko mën a jàng loolu mën naa nekk mu mel ne kon loolu moo aju ci jiital wird moo xam wirdu suba la moo xam wirdu ngoon la ya ca mën a nekk ak la ca mënul nekk leeral nañ ko yàlla na fekk leer na bu loolu weesoo ñu laaj koo xam ne kii wirdam daf koo faat ndax da dana ko fay wala du ko fay ñu ne képp koo xam ne kii sa wird faat na la da nga ko war a fay loolu moo jëw ci ñëw ci jawaahirul maani da nga ko war a fay loolu leer na ñu ne waaw koo xam ne kii da ngaa feebar wala jigéen joo xam ne dafa gis règle wala jigéen joo xam ne dafa am doom gis deretu meret ndax ñooñu jàng seen wird war na leen wala waru leen boo demee ci al ifaada al ahmadiya da nga fekk ñu ne sidina cheikh radiallahu anhu nee na koo xam ne kii da ngaa feebar tànn loo nañ la ci nga jàng sa wird ak nga bañ koo jàng bu la ci neex defal koo xam ne kii jigéen ju gis reegal wala mu gis dereti wasin moom tam may nañ ko mu jàng wird may nañ ko itam mu bañ koo jàng bu ko ci neex def li ñu namm ci ku feebar nag mooy koo xam ne dafa dem ba dooleem néew amatul kàttan wala boog koo xam ne kii dafa dem ba xelam xaw a jaxasoo feebaru xel xaw a tàbbi ci moom mu wóor ko ne yenn saa yi mu rëcc xelam rëcc ko kooku lañ na mu ci ko feebar waaye waxuñu koo xam ne ki da ngaa siburu waxuñu itam koo xam ne ki sa tànk day metti wala boog sa biir di metti wala sa bopp di metti rek nga taxaw bañ a jàng loolu la sidina cheikh wax radiallahu anhu kon daal loolu mooy atteb jigéen joo xam ne dafa gis règle wala mu gis dereti wasin wala koo xam ne kii da ngaa feebar moo tax moom cheikh alxaaji malik ba mu waxee ne indi wirdu yu ba noppi wax ne nag ku ko deful da nga ko war a fay mu ne summa alqadaau baada daaka muftarad in lam yakun udrun ka xaydin aw marad ginnaaw bu waxtu wi weesoo waxtu muxtaar ak daruri soo ko jàngul da nga ko war a fay summa alqadaau baada daaka muftarad in lam yakun udrun lu dul nag ngant am ka xaydin na ci reegal aw marat wala boog feebar taxyiiru di saqaami wal maxiid yi jaa an tijaani di tamxiidi tànn loo koo xam ne dafa feebar nag wala mu yore règle kooku nag ñëw na ci sidina cheikh tijaani sharif radiallahu anhu mu ne mën nañoo def mën nañoo bañ a def te fay du leen war loolu mooy atteb koo xam ne kii da ngaa feebar wala koo xam ne kii jigéen ju gis règle la wala muy jigéen ju gis dereti wasin ñu ne waaw léegi koo xam ne kii da nga doon jàng sa wirt dem ba ci biir ngay sikk sàkk naan man dama yokk wala dama wàññi bi maana def nga astaghfirullah ba noppi téeméer nga ko war a def yow ngay sikki sàkk naan ndax man juróom-ñeent fukk laa ko def ak juróom wala boog dama ëppal ndax def naa ko téeméer ak juróom wala téeméer ak ñett yaa ngi sikki sàkk nee nañ su fekkente ne da ngay sikki sàkk da ngay jàpp li gën a wóor te mooy li gën a néew bi maana su fekkente ne bii da ngay sikki sàkk ndax téeméer laa def wala boog juróom-ñeent fukk ak juróom wala juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett da ngay jàpp li gën a néew te mooy juróom-ñeent fukk ak juróom wala boog nga jàpp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett te bañ a jàpp téeméer bi su ko defee la manqué nga indi ko soo ko indee ba noppi nag ba sa wér de mat da ngay jàng baatu astaghfirullah téeméeri yoon fas yéene koo jange sikki sàkk boobu nga doon def koo xam ne kii itam wóor na ne li nga jàng dafa manqué wóor na ne yow juróom-ñett fukk juróom nga jàng wala juróom-ñeent fukk matul la manqué da nga koy indi soo paree nga jàng astaghfirullah téeméeri yoon jange ko loolu koo xam ne kii tamit wóor na ne yow mii da nga jàng téeméeri per ak juróom nga waroon na jàng astaghfirullah téeméeri yoon nga jàng ko téeméeri ak juróom waroon na jàng salaatul fatihi téeméeri yoon nga jàng ko téeméer ak benn wala téeméer ak ñett laa ilaha illallah nga waroon ko jàng téeméer nga dem ëppal ko il fokk nga defaat astaghfirullah téeméeri yoon fas yéene koo jange ëppal googu nga def loolu moo di atteb koo xam ne kii da ngay sikk sàkk ci da ngaa wàññi wala da ngaa yokk wala mu wóor la ne yow mii da ngaa wàññi sa wird wala boog mu wóor la ne yow mii da ngaa yokk sa wird te fekk teyu loo ko da ngaa juum loolu mooy atte bi wastaghfiranna mi'atan fi l-addi zaydan wa naqsan jabra hada al-wirdi wa kullu dha fi sahwi wal butlaani fi l-amdi xaasilun kada l-bayaanu wa kullu dha fi sahwi wal butlaanu fi l-amdi xaasilun kada l-bayaanu loolu la moom Cheikh El Hadj Malick wax li ci tegu ñu koy laaj mooy koo xam ne da nga juum ci sa wird safaane ko lan mooy sa atte koo xam ne kii da nga waroon a jàng sa wird nga waroon a njëkki astaghfirullah teg ci salaatul fatihi teg ci laa ilaha illallah yow nga safaane ko dem jiital salaatul fatihi teg ci hayla la mujj astaghfirullah nooy def salaatul fatihi boobu nga jàng da nga koy wàcc laa ilaha illallah boobu nga jàng da nga koy wàcc kenn du ko compter astaghfirullah ba nga mujj moom la ñuy compter nga teg ci salaatul fatihi door a indiwaat hayla la su paree nag nga jàng astaghfirullah téeméeri yoon jange ko safaan safaane boobu nga safaane woon wird wabni ala alyaqini in shakakta wa acidi tankiisa in cakasta wastaghfiranna mi'atan aydan kama marra wa shaykhuna bida qad xakama loolu moo di atte bi li ci tegu moo di koo xam ne kii bi ngay jàng sa wird da ngaa teewluwul bi ngay jàng sa wird da ngaa teewluwul mbirum àdduna daf la itteel ba tax sa làmmiñ tudd na ko waaye sa xol teewluwul jëmmi yàlla ji teewluwul jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewluwul jëmmi cheikhuna tijaani sharif radiallahu anhu teewluwul dara da nga jàng rek jóg kooku waa tariqa bi lañ ko jagleel soo jàngee loolu ba noppi may nañ la nga jàng jawharatul kamal ñetti yoon fas yéene koo jange li nga def te teewluwuloo ndax jëf ju nekk dafa am ruux te ruuxam moo di teewlu yow nag defuloo ko soo ko deful nag may nañ la ndigal ci nga jàng jawharatul kamal soo paree ñetti yoon defe naa ne loolu yomb na ci suñ jamono bii nga xam ne dafa lëj it tey adduna yi dema dem ba gañe nit ñi nga xam ne nit ki dana julli ba àggal jàng alquran ba àggal wasifa ba àggal wala mu jàng wirdam ba àggal te sax du teewlu jëmmi yàlla ci loolu yépp nag saa boo ko defee te bokk ci waa tariqa bi may nañ la nga jàng jawharatul kamal ñetti yoon fas yéene koo jange loolu nga def loolu nag waa tariqa bi ñoo ko moom waxoon naa leen ko ci gannaaw waa tariqa bi ñoo ko moom moo tax mu ne wa hada al amru ay jëf